Ibrahima xamal ne ay góor nga ko seqal parce que mënoon nañ na jox xale yi dañ la jox final daaw ne ma biñ ma joxee biñ la joxee final bi ne la nag suñu sañoon madame le maire ñun duñu jox kuk duñu jox koo xam ne parrain koo àndalu yow yaa ñu seetal ku la doy nga jox ñu parrain ma leen man de Mawne Ndiaye moo ñu doy Mawne Ndiaye Mawne Ndiaye raxma laaj bi si ku ma mun a jox parrain ñu jël parrain bi jox la daaw. xale yi newaat ma ren duñ ko jox kenn ñun moo njaay parce que daaw bi nga ñëw tam newoon nga leen fu ñu taxaw yaa ko taxaw mais nag yaay seen parrain ñu ñëw ren jii ñu jàpp ko première fois mu fomm deuxième fois yaam bi ma ñëwee voyage ñib see voyage yaam woon ko ne ma ñëwal ñu wax te ban jour nga bëgg ma ne la ma jàppoon sax benn jour nga woowaat ma ne ma su leen neexee ñu def ko dimanche bii ma woo xale yi wax ak ñoom ñu def ko dimanche bii muy tey nga yëkkatiwaat 1 million 500 teg ko seen loxo.

ñeewuñu communautaire parce que bu ñuy coupe du maire amul équipe bi nga xam boo xam ne duñ la cent quinze villages yi laa équipe yëpp la ñuy habillé te lii tax ñu koy def bëgg njaafa bëgg suñu jeunesse bëgg le président Macky Sall te ñu mel ni yow nag moo tax ñu def loolu. parce que nii nga xam ne la ko defee jox leen ko muy mise tey muy 1 million 500 coupe bu taxawoon tey ma ñoo ne ko Modou Ndiaye damay coupe du maire mu jëlaat enveloppe dolli ma si gor bu ne gor la te nag ku la nekkal si naaj bi nga nekkal ko si kër gi kon nag dañu lay gërëm di la sant tànkam woo kenn gëm nañ ne le président Macky Sall moo la ñor gëm nañ ne askanu département Koor moo la ñor am nga allié bu sûr boo xam ne ama personne la maa ngi jërëjëf Aïssatou Ndiaye jërëjëf maa ngi dégg kilifa yi mag ñi wax ñu ne baat bu gatt la way ku defu dara du ko dégg maa ngi lay sant bu baax di la wax ne sa ando ak ñun fi ci biir département de Kaolack dana yombal liggéey président Macky Sall dana yombal liggéeyu APR dana yombal liggéey population bi nga xamne ño nek sax ci biir département ma ngi lay féliciter di la encourager di la wax ne la waxon na la fi ci biir commune bi ne la lepp lo nek danañ ci and ak yow combat bo duggu danañ nekk sa kanam waaye danañ des sa ginnaaw pour assurer say garde loolu moom incha allah ñi ngi la koy waxaat fii ne la ñun amuñ benn soxla ci biir département bi lu may defar suñu sàppe ba président Macky duñu bett ci lenn lum soxla ci biir département bi loolu nag kenn mënu la ci moo taxit lépp loo nekk rek danañ ci ànd ak yow pour nga réussir ko ah ah ndax tey sa réussite fii ci biir commune de Ndiaffate mooy suñu si ñun ci biir département donc lépp lu ñu man wala ñu xam ko wala ñu gis na buñ ko defee wala buñ ko waxee dana tax li nga bëgg a déroulé nga déroulé ko loolu dinañ ci nekk ak yow ak sa population bii nga xam ne xeebuñ la ca ñooruwuñ la parce que man yàlla wërsëgalee na ma am na ci sa jeunesse bi ñoo xam ne su may rakk lañ dañuy ñëw ci man kon xam naa bu baax yaay kan ci commune bi xamna bu baax it sa doxin ak sa taxaway ci biir département de Kaolack maa ngi lay félicité bu baax diko wax ci mboolem nak ñi liggéey ci biir parc bi yëpp bayuma kenn né amal nañ la njukkal ci biir liggéey bi ngay liggéey donc ñi ngi lay sante di la félicité maa ngi remercier bu baax sécurité bi gendarmerie bi fi nekkoon ak mboolem ñi fi nekk ñëpp daal jàpp ci fête bi ba mel ni maa ngi remercier ñëpp wasalaam.